yàlla de. Lamb. Lamb. nga xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi. combat bi dox ci diggante Mame Balla Mame Balla lu muy def nii. man de jotuma lim sax Ngourouba daan na ko. man li la ma def. waa lii yomb na di. Ouzin lii gaaw na de. sama caméraman bi ba pare na. ba pare nga. la <laughs> ma ñëw vite fait bien doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. Eh, Mambala daanu na. Mambala daanu na. waaw Brise de Mer kan la bëri gànnaaw combat bi. Brise de Mer waaw ñu Brise de Mer ak kii ak Djibi Paul ak ak ak kii. Boy Djiky moo ñu wan ginnaaw Faaya la ñu jaakaar lool xale yi lewaatoo nañ ba mu neex ñu dagg lewaatoo bi abu noo gisee ñaari xale yi. waaw diggante Boy Djiky ak ak Faaya combat mu neex la Ousseyn boo xoolee conseil scientifique bi neexoon na lool xale bi nga xam ne mooy Faaya mu ngi mu ngi dëkk Géejawaay nekk équipe Walfadjri ku xam Walfadjri nag xamoon yaa Moussa moom moo nekkoon kër indi ci làmb jamono nag dafay dox mu tukku daal di voyage tukki mais ki nga xamante mooy booy tukki mu jógee Kër Massar mbooloo moom tamit ndaanaan la ci côté bëri waaw ndaanaan la moom tamit Ousseyn. xale yaa ngi lewaatoo combat bi dox ci booy ciki ak faaya booy ciki ak faaya booy ciki ak faaya faaya booy xool mbokk yi moo def rasay bopp bi booy ciki moo ngeen moo ngeen lu bees yi Faaya moo ngem moo boo xoolee ngem li daa xaw a xàll. rek laa ci de. ah daawoo dem di seetaan. <laughs> est-ce que fàttewu ma. ah xam naa ci ginooris moom lu tuddee moom xanaa booy ci gi xeex de. <laughs> Ah, kon boog nañ seetaan wala boog ñu yónni yàgg xale yaa noonu booy ci gi ak Faaya ngay lewaatoo lewaatoo bu bar. Boy Thieky ngi dox dagg liwaatoo bi dox Boy Thieky Faya Boy Thieky Faya. recul bi Faya def sori na de Ouzin xanaa bu nga daw génn làmb ji. am am ziar naa la ci loole Boy Thieky ak Faya. Faaya daw na jël ko Boy Thiki ak Faaya Boy Thiki ñoo ngay dóor Faaya ngay dóor Faaya dóoraat na dóoraat na Faaya dóoraat na rëpp na jeex na eh Boy Thiki daan na Faaya samp na bopp ba waaw waaw jël day leer <laughs> jël day leer mbër boo ko mënee dañ ko koy won xoolal ma public ba. Boy Thiki daan noonu Boy Thiki daan na Faaya fii la war a lépp. ci loolu sant ku tedd gi. tey noo ñëwee. waaw tey xam nga ne ñëw mafia bi ngemb ma yaa ngi comprendre ñi ñëw war indi lu bees tax bëri yàlla may ñu ndam comme moom. lu bees lu mel na waaw xam nga rek làmb moom léegi xam nga dafa xaw a métti kon soo ñëw rek day indi lu bees quoi waaw. tey làmb dina xeex. mënut a ay xalalaan xale dafa war a def lu métti soog di am. wane boppam. ah ma ne wane boppam. mi ngi noonu nag. yaa ma gën a. mbër nuyu naa la. siyaare waa ñu ngi sant yàlla. na maa ngi raw fuuf. foo toll. non maa ngi ci wàccaay di xaar di déglu promoteur yi tamit. waaw lu ñu wax yéen gars yi ñan la ñu wax. ah non Abdoulaye mu ngi doon contacter. mais maa ngi koy déglu ba léegi quoi. waaw. proposition ba yi la proposé baax nañu wala. waaw am na ñenn ñi nga xam ne sa ah, làmb boole na ma ak ñoom am na ñenn ñi nga xam ne boole wu ma ñoom quoi. waaw. ñi la làmb boole ak ñoom lu tee seen làmb taxaw. ah ñi la boole ñi làmb boole ñoom lu tee seen làmb taxaw. ah moo mooy loolu xam nga rek lamb ji fi mu toll nii mooy loolu man ku ne xam na ne Jara deux day mobiliser day ñëw boo jox bisam ak ah, sama combat bi passé gis ngeen ni ma def stade bi man daal maa ngi toog di déglu quoi nekk si li ma war a nekk quoi. ah baax na ci kan ñaanal sama doom yaay diwul problème yàlla may ko ndam bu set wi ci seen Seydina Mohamed waaw di la nuyu bu baax di nuyu waa Wasaare ah. ñëpp doomi yeewu lan waa Pikine baa ngi nii. doomu doomu lan waa doomu quartier yeewu. waa Canaba ñë gaa yëpp ngi nii barke alxuraan karim du yàgg. tey heure waru la gis na la ah, non non. c'est lan nga la waa yeewee ndam lu doy barke alxuraan karim saa yi jël quartier yeewu bi yeewu. ah. waaw ziar waaw mbër. jaar. loone sant ci digg géew bi ngeen waaj bi. si kanam dañuy def mouvement bi rek waaw. lamb tey tey lan la dal rek. ma fi abee ñoo ma topp. waaw. war maa def dara lu dul dal. combat lay am. Ah. surtout Samba Xaan laa du ma ragal. kon ci doomu saafe nuyu naa la. fay naa la. Fils de Gora yóbbante na ma ci yow. ah la. nee na dala xiif ndax dala bëgg a lekk. waaw loolu dara. loolu dara. nee nag bokkoo woon sax ci adversaire yi nga xamante ni moom la war a bëri looloo tax mu xiif la bëgg laa lekk dem xooli say morom. loolu waxu mbër la. tey naka nga ñëwee. ah. man lu ma ñëwee. dal. ak jàpp ko daan ko loolu loolu laa indi tey incha allah si kattan yi. bi mooy sa ñaata combat. septième combat. ñaata. sept. ñaata victoire. six victoire benn défaite. sa góor kon est-ce que xam na no non xaw ma. xaw ma déedéet xaw ma. mu tey la may xam nag mais xaw ma. ah xamul la de dafa jiw la xaw ma. xamul la de su ma xamul du ah. ko. Ah, xaw ma waaw. waaw kon baax na ba ci kanam. waaw incha nga andee waaw comme ni naan andee yeneen mbëri rek di ko ñaanal yàlla may ko ndam doomu saafeen booy la mu nekk ci yoon làmb waaw dafa nekk ci yoon quoi def sept combat benn defet kon nag du Fils de Gora moo ñu war a a téye day ñaan yàlla bi nga xam ne mooy may ndam yàlla suñu borom ànd ak ñun suturaal ñu may ñu ndam quoi incha allah. baax na kon bonne chance. kontaan ci rek waaw. làmb noonu waaw waaw amu benn problème waaye tam benn côté dafa métti quoi parce que tam boo nekkee ndaw xam nga nga nekk di reyandi xam nga nga tegle quatre dafet si boore ñoom duñ comprendre ne sport la quoi affaire si foofu rek la métier waaw def naa lu ma war a def yëpp samay gars yi jàppale na ma. mais làmb victoire la défaite la ak match waa waaw aussi tam maa ngi si sant yàlla bu wér te moom chaque làmb buñ ma daane damay jooy waaye boo gisee tey du ma jooy. dama xam ne du ma yàlla yàllaay maye sax lamb buñ ma daane dama ne bàyyi naa kon nag damay julli si yàlla xam nga di ko sant di sant yonanti bi di sant samay ñaari waajur yal na leen yàlla yërëm xaarale alijan di courage gën a liggéey aussi itam Medina Baye moom aw ma fayam quoi boo gisee may jooy sax moom moo tax c'est que gars luñ koy wax koñ ba quoi jaru jooy gaal lamb gis ngeen mbokk maa ngi fi ak daa mel ni day de. waaw ngeen andee tey seen. Euh, na nga def maa ngi ci jàmm man maa ko yore man maa yore écurie Fass bi. waaw. kii ban mbër kii la ñuy wax BM. BM double wala. waaw. ku muy bi muy bëreel ma nga ne xaw ma turam quoi. waaw mais bu làmb ji sottee da nga ci xam dara quoi ah. waaw. gis ngeen mbokk yi am na benn sangoor gu mu di ko takk kaay kaay kaay kaay ni kaay yow bi nga ba léegi kenn gisu kenn déggu la ci loo ne waaw sant nekk ci li ma war a nekk nekkaat sama entraînement booy bi daan rek nga lëlu nangootuloo feeñ lu xew waaw mais coach rek ñoo nëbb xama te am naa combat le 9 mars le 9 mars waaw sama diggante ak bombal incha di si ñaan waaw ñaan kan bombal bu Grand moom laay bëreel di si ñaan ndam di leen wax espagnol baa ngi ñëwaat ak yeneen kàllaama yu bees ah estoy listo para la muerte. non yow da ngay ñëw plateau. non defal loolu mooy loolu yow sëñ rek. waaw ah, baax na ci kanam. lan ngay wax Tidiane Faye moo booy. non parce que yaakaar moo ëpp doole bu arbitre soufflé day dox ci laa ko wax pour mu téye parce que booy bi xam naa ne moo ëpp doole waa ji mais jàpp confiance yaakaar moo ko ëpp doole mais arbitre bu leen firib na booy bi ta parce que ndaanaan la quoi. loolu bi dafa yaakaar ne moo ko ëpp adversaire Ness 2 dafa yaakaar moom moo ëpp doole tax xam naa Ness 2 moo ëpp doole moo tax bu arbitre sifflé day jéem a dox si kawam da koy attaqué da koy jéem a ko loolu laa wax Tidiane pour mu dem wax booy bi na tey parce que si kawam la jëm waaw. foo toll. naa yow laay déglu. Ah, bii sama tëb bi seen sama seet la. télé bi depuis maa ngi koy doon boo koy suivre sax boobu pour man amul Sénégal parce que États-Unis laa doon gis ma abonné ko musuma ma xam pour man agogo yi waaw man moom mbër booy yi. waaye booy yi. bàyyi naa may la. man ak làmb la. waa ji maanaam moom làmb la. est-ce que xam nga dama bi. yàlla Mamadou man moom làmb la. dama am métier. su ma fas yéenee bëri booy sama métier li ma sama métier di jox. làmb joxuma ko. su ma fas yéenee bëree ak booy yi. su ak booy ma téye ci sama métier damaa yor métier booy bëri mag benn booy. seize seize laa def man kii làmb la. barke alxuraanu karim seize combats laa bëri. nee na mayeetul sax. mayeetu ma sax dama am métier. naree bëri booy dem jàpp sam métier. bëri mag benn booy. kii man ak moom làmb la. déggoo ma seize def. xëy sax moo ma ëpp combat parce que laa def trois défaites. kon bu defee seize combats rek. waxuma loolu si sa diggante yow ak moom la. ah seize combats la looloo looloo ma bëree loo ak moom même bu nekkee. maa ko ëpp combat maa ko ëpp victoire. waaw kon jeex na maa ko ëpp coow eh, jamono jamono jamono ji jamono ji moom dama koy boolewaat ci affaire yi. Eh, waaw. Eh, jéegul sax ëpp ma coow ba pare lamb. barke alxuraanul karim billaahi lazi xala oh. luñ ma fay ma jël ko. kon jeex na. billaay mais doo ñu invité plateau ñu ñëw. barke yàlla yow laa invité damay ñëw. barke alxuraan kër damay ñëw. wuy ma ndawut morso bu naa pour bëri maa maa koy jël te barke yàlla da koy daan. waaw non man kii man kii foog nga bëreeg moom. kii foog nga bëreeg moom parce que foog nga bëreeg moom parce que alxuraan parce que tijaan laa soxla. non tijaan laa soxla foog nga bëreeg moom su ma bëreewul ak moom du ma mën a bëreeg tijaan xam naa li ma la wax. kon mercredi woo naa leen. barki yonent bi damay ñëw. jeex na non far yow. gaa eh, njël li dañoo. Baye Diop ak Nees mbokk yi Nees boo xoolee moo ñëwoon ginnaaw boo ko gisee sa xel day dem ci Nees bu mag ma Baye Diop ak Nees. nees moo ñëwoon ginnaaw moo def rassin ca booba mbokk yi booy xool ñoom ñaar xaw na ñoo tooyoo tolloo taay tolloo nañu taxawaay ca poids ba ñoom ñëpp ñoo tolloo ah Tidiane Faye moo andi Ness abu noo gisee ñaari xale waaw Baye Diop ak ki nga xamante ne mooy Ness Ouzin ñaari xale xamante ne comme li wax sànq rek ñoo xaw a tolloo taay Baye Diop moom tamit mbërum sumbu jum la mbërum mbërum lëbu la jàppante lan mooy xew diggante Baye Diop ak Nees lan la Baye Diop la Nees def Baye Diop Nees Nees Nees maa du kaaw ah Ousseyn. <laughs> Nees ak Baye Diop génn nañu Baye Diop génn na. Eh. Nees a ko génnee de. mais mais xoolal Nees ak njàpp waaw sama xel dem na ca Nees. na ca Nees. xel dem na ca Nees mu njëkk ma. daan turandoo bi. turandoo turandoo daal dégg naa da bokk moom jikko. wala ngeen dóor yéen ñaar waaye nees mi dóor naa turandoom abit selu waat na combat bi dox ci diggante Baye ak nees Baye Diop na ba gat nees siggi na xoloon ma teenu nees ba xoloon ma teenu nees bi a ah, nees na moom day duru turandoom day bëri salañ salañ bëri ay borom feem la jël na ko Baye Diop Baye Diop li muy maye bëri na de waaw li muy maye trop punkol kenn du ko may lii xam naa wul na poids am de day wane dafa diis mais punkol kenn du ko may plaqué na ko da koy mbot ko nees mbot plaqué na ko ba jot doon ko mbot nees daan na ko xoolal ma nees a xale ya nees a ngay gas nees a ngay gas waaw waaw waaw boo ko xoolee gis Tigre Junior ndax mook Tigre siñoor ñoo bokk ndey ak baay rakkam la rakku Tigre Junior la ñoo bokk ndey baay boo ko gisee gis nees boo ko xoolee gis Tigre Junior mais xale la bu ñu am yaakaar ndax bëgg na li muy def ah bëgg na li muy def. ginnaaw sant yàlla barki moom Serap Fall caatu cekkaa ngi nii musuma tàppee lool ngir boromam. kii maama garage la waxoon naa ko nee naa ko li nga ma magee mën na vingt ans wër na maam Seera Fall. lees numéro jeex na man maay caatu cekka bii mooy sama deuxième combat man waroon na dépassé fii mais xam nga rek ay science mais yàlla baax na. waa gars yi rek gars yi bari na fi ñu ngi fi nekk di cali cali duñ dërëm ku ma si jàpp bari na. bari na boo yaa ngi fi daal koo cité dañ naan da nga kaa préparé barki maam Seera wax baaxul jërëjëf waaw noonu la demee jërëjëf borom. waaw ziar naa la. parce que delloo na la sa booy. waaw tey dama ñu sama poulet 10 000. waaw mu war a. naka ngeen ko andee tey. waaw ci lépp waaj nañu bépp côté contact physique din box lépp mystique lépp waaj nañu bépp côté waaw incha allah ñaan suñu borom ma ñu ndam ci kaw noiro rek tam di sedd guy gaaw. baax na kon ci kanam. waaw waaw ren tëdu bu bees bi ren tëdu naaj. waaw waaw looloo xew léegi lool loolu jaajëf waay. mais mbë mbër ci loone naas lépp jaam. yaa ngi ci jaam sant yàlla. dama gis ngay lan la. non dama ànd ak sawarte yaa xam te sama adversaire. kan doomu saafeen. xale boobu ndaanaan la. waaw champion la moo tax ma jël ko mais damaa yàqamti adversaire bi si boppam moom dama ko yàqamti. lan nga ko yàqamti. damaa fu ma bëgg a dem si làmb ta si moom laa koy wane. moo tax ma xiif ko. dama ko xiif nii da ngaa yàqamti abis. dama koy lekk c'est ça dama koy coob bii dañ ñëwee butéel bi la wala. waaw gën a xam. <laughs> waaw mais tey naka nga ñëwee. waaw sant yàlla nag julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur. waaw tey moom dañooy ñëw rek dal ak tey lu ñu yàlla may ñu jël mais nañ wane fula ak jom. gis nii xam na ne pare nga tey. ah lu waral loolu. ku la gis nii xam ne tey moom fi mu doon macha allah. waaw xam nga yow yaa ko gis est ce ñëpp lañ gis. ci yoon ci yoon. waaw kon man baa ma dal jàmm gis loolu. lan ngay wax ma ko wax mooy mu lim foog amul. lu foog. Ah, lu foog mooy ñëw jàpp daanu. mais ñun li ñu war nañ ko def. waaw. mbër nuyu ñu lay ziar. ci loolu sant yàlla bu baax. li waaw li ñu tuus loolu la rek indi ndam indi lépp si kàttanu yàlla te yàlla na ko yàlla may. mais tey bés lu mu laaj. bés bi teel a laaj teel laaj ñëw jàpp ko def lu wóor daal ko doon ñibbi la laaj. mais xam nga adversaire bi nga am. Brise Mer naa tur yu nii rek. xam nga ko nii nii nii. xam naa ko nii waaw. loolu wóor na. non man xanaa la am moom moo war a xool si man mais amul may xool si moom. taw bi sifflé bët quoi. si kanam tuuti di nga gis lépp. waaw ah, kon baax na ci kanam. ay ah, wax bi si kanam la. Ah. waaw instant yii jëf leen toolu wax ci si kanam. woo naa la téléphone. Hmm. fu ne wër naa la fa sa téléphone nuñ ko def dañ ko sàcc wala na. non téléphone bi secret la affaire la. dama bañ ardo moo sàcc téléphone bi. asa ardo jëlu ko ardo moo ko jël. am na sa moo jël téléphone dégg naa. dégg naa kay dafa réer man téléphone nu mu demee noonu. Adama moo ko jël man loolu ma jaaxal si jëlu ko. doo ko jëli. ah non bañ la neuf rek comme ba la neuf la gaa waxagum. Ah. waaw. mais nam naa la. waaw maa raw ngi nii rek. fan nga toll ci entraînement ah ñu ngi entraînement di waaj quoi. waaw gars yi jàpp nañ di date le 9 mars. mais dafa mel ni le 9 janvier lañ le 9 lañ defoon ñu poussaat ko ba mars wala. waaw nañ ba mars waaw noonu la waaw. dafa mel ni pare naa bu yàgg waay boo paree xanaa nañ ma war a rey di combat ba mu des sa plateau la taxawee <laughs> waaw. Ah. lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy support ñoo lay supporté Mbagnick. waaw maa ngi woowu waa Medina Derkele Sida Mbarène Kër Ndiallo Asegna Grand Yoff xaar yàlla ñoom ñëpp waa jëppal Liberté kat ñoom ñoo ñëw jàpp si quoi bi mooy suñu premier grand combat ñoo feesal stade bi allah waaw. lan ngay wax Ardo. Ardo ma koy la mu pare rek lu mu waaj doyul rek rek yaa ma a xam. la. waaw laa xale rek ñëw fees stade bi rek yaa ma gën a xam ba dama ko bagage loolu demee <laughs> bilaay mais bëgg naa am na lu di ko joxoñ adversaire am Brise loo ne sant yaa ji ñaam tey bés bi lu laaj bés bi tey waaw respecté bés bi rek jox cër bés bi. waaw entraîné nañ bon préparé nañ combat bi ba pare xam nga combat yi bëri na lu ñu wax trop ku nekk yàq na sa moroom joxe waaw léegi lu des mooy xam nga fas jom rek waaw yàlla yàlla suturaal. sa place si làmb du fii tey boo ñëwee jël booy nan nga war a ñëwee tey. moo tax dama war a tey dama war a tey dama war a teg lu der tey dama war a teg dar tey der lay teg. xam nga ne làmb tey bi bokk na ci li la mën a delloosiwaat ci làmb. xam naa loolu. moo tax xam naa baal baal bi suuf la wax baaxul nañ ñaan yàlla rek yàlla suturaal ma yàlla na ma yàlla suturaal. amiin kon ba ci kanam bés bi de. naa ziar naa. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. ci loolu. sant ak mu njëkk moytu. mais lan moo waral sa teewaay ci stade. non daa sama benn boy buy bëre daal moo tax ma ñëw fi waaw. Noah Rose Junior ñu ko ñaanal yàlla ko yàlla may ndam bu sedd guy te gaaw waaw moo waral sama teewaay. boobaa ak léegi gars yaa ngi wax dara wala waxu. gars yi ñoo wax mais gars yi tàppale lañ ñamuñu avance bi quoi. ñan ñooy tàppale. bari na dama lim di leen may buzz. waaw dañ jël avance bi dañu bàyyi rek lañ demee ñu lay xayma ñoo nekk si làmb rek dañu may sax ñu bëre grand yi daal waaw. bo mënoo leen jeexal war na Serigne Touba loolu demee. ñan ñoo ñeme fi mu toll non sama combat giro si laamu dàq ko. combat giro. laamu du ko dàq. wala laamu du ko dàq. dama jël ñu bëre. waaw moo ngi lay seetaan. waaw dama jël ñu bëre giro yow la mën a yow. Ousseyn booy jaaxal rek Eumeu Sène la. donc Eumeu Sène ma. ah. day am double V ak Boy Jaxaw Ousseyn arbitre bay wax ak ñoom ñaar BMW nag Boy Jaxaw mu ngi jógee Kër rakk la ci Eumeu Sène waaw Boy Jaxaw fils de Kora ngoog ndeysaan Boy Jaxaw ndeysaan ñaar Boy Diakhao ak BMW ñu nga ca Boy Diakhao ma ñu woon kanam BMW ma ñu woon ginnaaw BMW nee naa la ci ma tëb si gën a bëri xale bi waaw moo ñu woon ginnaaw Ousseyn mooy BMW Boy Diakhao la rak la ci Eumeu Sène kii moo topp ci Khadim Ngom xam nga xale yi làmb ñoom dafa ne ci ñoom boo bëri dafa war a war a bëre ëttu làmb la juddoo Eumeu Sène mooy sama mag rek doy na histoire ci làmb booy jaxaw nag waaw. doorante eh, nañu doorante nañu Ousseyn. booy jaxaw mun na bëri mun na xeex. mais même duur benn ndaanaan la parce que c'est victoire yu bëri la toog ñàkk adversaire moo tax mu jël saa waaw Ousseyn doxalal Ousseyn ba mu neex. booy jaxaaw W BMW. booy jaxaaw jaxaaw sin daw jël ko daw jël ko war na ko ndomba booy jaxaaw BMW mu ngay ma ngay dóor ma ngay dóor booy jaxaaw BMW eh penalty la ci làmb soo ko ratee rate lu rëy dina ca du ca génn abu penalty la Ousseyn dina ci génnam du ci génn booy ah bépp du mu suuf rok si métti na. est-ce que li arbitre bi warut a atte. waaw non atte rok si dafa métti mais booy jaxal exploité bëri daan ko. fan yii passé booy jaxaaw na moom fii tournoi poids moom booy jaxaaw. lu bës bi wala bës bopp bi. bëreel lamb la. mais nag mais nag. oh mais effort bi bi bi booy jaxaat waaw Abidou àtt waaw waaw da ko bu mu gaañ ko. jaxaaw daa mel ni daan na BMW. daan na ko daan na ko. booy jaxaaw daan na ko. daan na ko. Ousseyn daan na ko de. waa lii. sécurité lamb rek la ah daa am sécurité kon. Eh. ah lamb ngi nii. lamb yi dafa rek. ma booy jaxaw. sécurité daw dugg ci diggi géew bi. di xaamu mu pare ñu yenn ko yóbbu. lamba ngi noonu. booy jaxaw amul problème jaay taar fecc ak man kii mooy métier waaj ko xewoon ma bay moo ko daa xabaare waaw moo def man. Idy. Idy. dama ko ma dara bëree gu ma sax. war na yaakaar benn barax yaakaar ma. kii dama koy sant di nga gërëm. di nuyu waa benn barax ñee ñëw tax may yaay sama yaay daa sonn si man bu may daa jooba sonn. war naa roxaan ak keneen sama mag joo seen. maa ngi koy nuyu xaalis bëri la ma yor bi may bëri di bu wér a wér a baam maa ngi déglu rek du ma dëgg benn mbër ndax xam naa lu nekk ci laa du ma ragal wallaahi. du ma ragal wala morom ñan ah, boo du ma tudd tur. waaw boo tuddee yow ñoom luy wax. incha allah. jaajëf waaw amul <laughs> kay. promoteur. le playboy des promoteurs. le gentleman des promoteurs. ak yàlla yàlla baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Fils de Góor doomu Saafeen Fils de Góor moo ñëwoon ginnaaw ngemboo ngemb lu weex li doomu Saafeen moo ngemboo ngemb lu ruus li abi baa ngi wax ak moom nee na ko tojal nen bi abi baa ngi laaj ay jugeem Fils de doomu Saafeen abi bi laaj naa Youssou Diop. Fils ak doomu Saafeen. ak doomu Saafeen. xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi. xam nga boo xoolee Habib côté Saafeen la dëkkee si sëriñ Saafeen Saafeen si boo xoolee ay mbërëm xaaj bi yëpp ay jaxaw siin la ñuy dëkk côté yooyu ay mbëru Saafeen lépp lu mu tëgg mais doomu Saafeen si defeen la jógee Fils de Gora si victoire la jógee waaw làmb ñu nar a neex ñoom ñaar nag ki nga xamante équipe booy ñoom si ñoom kii la nekk ñoom booy Dakar. moom booy bi nga xam ne mooy mooy doomu saafeen mu doomu saafeen nee nag dafa juumoon daanu loolu la wax dafa tollu ci ay dynamique am solo dëgg la ay victoire am solo mu ñëw daanu booy bi nee ko dama lay daanaat. mais fii sa góor sànq dafa am lu ma wax nee na ma dama koo xiif ndax dama koo bëgg a lekk. musu bëre combat bu yéex de fii sa góor mii ah qualité yi ma xam ci moom su ma ko waxee dem ñu ne am na ko dem ñu ne ma koo faral te faralu ma gis ngeen làmb ngi noonu. dox ci diggante fii sa góor ak Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora Fils de Gora cokaas na léegi Fils de Gora doomu Saafeen

Fils de Gora cokaas na léegi doomu saafeen cokaas na Fils de Gora doomu saafeen Fils de Gora doomu saafeen Habib bi àtte na arbitre sif la waat na Fils de Gora doomu Saafeen dafa ne tek Fils de Gora eh, doomu Saafeen door na léegi doomu saafeen dóor na léegi ñoom ñaa kenn nangoogu cee dem congogunu xeexagunu jàppanteegunu man dama bëgg ay xale yu jëflante defante doomu saafeen dagg na lewaatoo bi dox ci digg géew yi fils de Gora doomu saafeen Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora doomu Saafeen cokaas na léegi Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora daa bëgg dem waaye kii di Yomou Safé daa wàcc gis nga jàppante nañu jàppante nañu doomu Safé Fils de Gora ñoo ngi manœuvre doomu Safé dafa mel na mu jàppee baaxul wala Fils de Gora fu jàpp baaxul doomu Safé na ngay wokkas Fils de lu mu bëgg def caxabal ba daa sori Fils de caxabal ba daa sori Fils de doomu Saafeen ku ci nekk yaa ngi xool pexe yooyu mën a def pour mën a am di sant. Fils de doomu Saafeen Fils de Gora Fils de Gora la nu jàkkaar loolu moo takk moo sabu weex bi ci bopp bi Fils de Gora ngay xool tànk yi xeex nañu Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora doomu Saafeen Fils de Gora doomu Saafeen. Fils de Gora ak ki nga xamante ne moom mooy doomu Saafeen. ndeysaan Habib lekk naa tey dafa def lu rëy. tey Habib lekk naa def lu rëy ci lamb. dafa boole ay xale yoo xamante ne lamb dafa leen a bàyyi ak espoir. waaw waaye Habib lekk naa lekk naa lu rëy ci jox. Fils de Gora doomu Saafeen ba tey. Fils de Gora doomu Saafeen. Fils de Gora doomu Saafeen Fils de benn loxo ci ngemb doomu Saafeen am benn loxo ci ngemb Fils de Gora yaa naaw Fils doomu Saafeen eh Fils de Gora koy bii da koy da Fils de Gora que loolu wóor na. dafay téléphoné de. déggal maas. <laughs> Mathiam Ndiaye noonu. <laughs> Fils de doomu Safeen. Fils de nag la muy def lu jëpp da koy téléphoné. nii laa lay daanee kaay wala kaay mot la. doomu Saafeen Fils de ñoom ñaan nag mbokk yi booy xool dafa mel ni dañoo xaw a tolloo doole. Fissoko bu baax a baax déggal Habib <laughs> Habib a ngi noonu Fissoko doomu Safen Fissoko doomu Safen Sogo doomu Saafeen xale yi seen combat yàgg na ba xale dafa war a gaaw ba xale dafa war a gaaw. eh doomu Saafeen door na léegi Fils de Gora wàcc na Fils de Gora doomu Saafeen. Fils de Gora doomu Saafeen Fisago jël ko Fisago doomu saafeen fàq na ko léegi doomu saafeen a ngay bëree fàq na ko doo teq na ko doon na ko tànk foo xëpp na doomu saafeen doomu saafeen takk na ko eh, daan na ko Fisago daan na doomu saafeen eh ci kaw bërëm na ko daan Fisago ci kaw bërëm waaw il n'est pas démérité waaw Fisago Fils de Gora daan doomu. waaw ah, di euh, tey waaw di sama doomu nday sama xarit sama lépp dal wax dëgg yàlla ndax ku la tuddee moom desatul euh, dara waaw di sant euh, Basirou Babou ak mbay Diagne Mbaye Diagne doomu ndayam ñu ngi koy sant bu baax ndax ñoom suñuy kilifa lañ si làmb waaw gannaaw bu ñu sante président CNG d'abord Bira Sène ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom it di sant na délégation bi ma àndal. waa ànd naa samay frère samay mag ak samay rek ànd naa ak samay dëkkandoo ànd ak samay euh, wax dëgg yàlla samay am di jàmm. ah satisfaction bu mag a mag waaw satisfaction bu mag ndax euh, euh, moom dafa def li muy def ba pare soog ma woo ndax daaw am na ku ma tuddee làmb ma waxaan waxtaan moom naxante ba génnaat ci waaye moom def lépp ba pare ne ma tudd dara taxul ma def ko dama ko def ndax si làmb nga bokk loolu la ñu bëri war nañ si bàyyi xel waaw ndax. amateur yi dafa bëri tey amateur yoo xam ne ñu ngi toog seen coin te bokk ci làmb ñu war leen boole si làmb tey ñii ma àndal amul kenn koo xamante doo amateur bu mag ñoom ñëpp Fass la ñu dëkk 90 pour cent yëpp Fass la ñu dëkk ku ñu ne Fass moom daanaka mënuñu la génne si amateur u làmb waaw donc ñooñu dafa baax ñu leen ñaax ci làmb di leen indiwaat voilà di xeexaale violence bu baax a baax ndax bëri na ñoo xamante ne tey ñàkk euh, violence moo waral mënuñu topp tey délégation bi ndax ragal nañ violence bi boo waxee ñu ne la làmb wóoratul ak yu demee noonu donc dafa war a am amateur yu bees yoo xam ne ñoom la ñu war a ci làmb ji jëlee si seen coin indi leen si làmb ji gën a civiliser làmb xamal ne làmb ci kanam la war a jëm jërë ngeen jëf sant nañ leen ñëpp presse tamit bàyyiwuñu kenn waaw sunu làmb wax ñëpp ñu ngi leen di sant Ablaye Dembélé Boubacar Niang ñoom ñëpp ñu leen di sant wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf nan la dem directement mani Habib a fait un bon choix. choix bi mooy lan Habib. waaw mbaa man naa bàyyi ba mu pare mu xool ma wax ko li wax. waaw ndeysaan monsieur Mbaye Diop xam nga lu tax Habib a fait un bon choix dafa jël làmb delloo ko làmb sànq bi nga ma ne man maay président écurie Fass Benno sama yaram dafa daw dama ne nit soo ko jox da nga koy jox li mu moom nit boo koy jox da nga jox li mu mérito ñu bëri ñu ngi leen di jox làmb dañoo rus ak pare ba waaye yow mi ku la xool xam ne nitu nga ndax président écurie dafa metti xale yi yaakaar la ngay dagg ci sa temps di jël ci sa wërsëg di ko bokk ak ñoom kon su Habib jëlee li nga xamante ne mooy drapeau bii di combat spécial buy dox si diggante noiro ak 10 000 problème bu la ko joxee dafa delloo mbatt ca ndaa la kon gàcce ngaa la ma monsieur Baye Diop borom restaurant Tawfekh ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg ci restaurant ba ak li nga bëgg ci Fass Benno yàlla la ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama ni tabe ba tabe jeex nag tabe sa daraja moo ca gën ndax ndaw loo gis muy ñëw dara jëy ko ko yónni la soo ñëwoon tey nii la la Habib Guèye teeroo ka yónni da koy teeru yóbbu ko toog moom ci tribune bi su param yóbbu ko ci télé bi waaye defoo loolu danga nga ne man ak Habib rek ñun ñaar côte à côte yal na yàlla dolli sa jàpp. léegi nag Habib nee na mi ngi la sant yow tam ndaxte tam mbuus deful lu gën pépp li ci bés bi. loola sax nee na rus na di ko waaye dana wax ni Sénégal yëpp nañ xam ne jàppale nga ko ci bés bi waaye sax di ci dugg ci biir sax jaru ko waaye na Sénégal yëpp xam ni monsieur Baye Diop jàppale na Habib nga xam ne Habib Farxat ndaxte kat bi cum liir bu neexee ndey daa téye ca bag ya te kii day doog a le golden boy le gentleman c'est l'homme le plus beau de tous les promoteurs macha allah maa la ko wax ne nag merci ak boo dégg daa am lu borom def at bu ndaw la waaye ku deful dara du ko dégg Habib nee na merci beaucoup yow waxul merci rek mais merci beaucoup la la wax ni ngi lay sant di sant délégation bi nga àndal di sant nag madame di sant nag monsieur Babou mi président de tous les euh, ménagères du Sénégal kii ku koy ñaanal ku ne na ko ñaanal mu yàgg fi ndax moo baax ci promoteurs yi ndaw yi de baabu yal na yàlla dolli sa jàmm yal na la jàmm sonal la taalibe sëñ Basiru bi taalibe sëñ Fallu taalibe sëñ Abdoulaat bi taalibe sëñ Ahmad Bamba bi yal na yàlla dolli sa jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñii mi problème ak noiro baax problème ak noiro. dix jël ko eh. eh problème lu def nii. dix problème noiro. noiro fa mu baax na. dix problème la mu maye bari na de. dix problème bi ko daal da ko caxabal. mbot na ko waaye dangay daanu dangay daanu dangay lu xew. la moo xew di mu problème noiro euh, arbitre bi na arbitre ba dugg na ci digg géew ku daanu dix mille problème ni daanu na wala boo dix mille a daan na noiro euh. oh, vite fait bien fait dix daan na noiro euh. dix barke alxuraan karim sa waay yeewu dañ maa yëpp yeewu dañ ñu man chaque jour naa yeewu di entraîné di jëw di dóor di daan waa quartier yeewu laa may victoire bi barke alxuraan xamante ni mooy làmb làmb nuyu naa la sama waaj a sama waaj noonu naa la de ci loo de gërëm yàlla naka dëkk bi waaye dëkk baa ngi nii rek di neex de mais dëkk bi neex na moom ah, ah waaw tey noo gisee làmb non tey làmb ji neex na de wax dëgg yàlla booy bëri nañ waaw amul ay léewtoo jëmale bu kenn xamul yaakaluñ fi kenn waaw ah, non xoolal heure bi pare non gars yi nag waaw lii gars a nag gars yi nag ñoo ñooy réclamé waat nee est-ce que yaa ngi waaw non non non gars yi lu neex. lu neex lu ne si mboppay lay def mais loolu naqari dañuy tuuri rek. bilaahi nee leen maa leen gën a nam fuuf. waa ale boo gis am na retour. maag wasaare du yomb de lépp la ñuy wasaare fii. ne leen nag ñoo ngi leen waaj lu bees tàq. lu bees tàq lu neex yow tamit nag avec lamb tout est possible. waaj yi kii ndaanaan la yow. ki génn lamb mu fëgg senegal gépp yëngu surprise yi si desoon avant baxal bi. xam nga waxoon naar leen sénégalais yëpp boo leen doon baxal si cin jarul ëpp ku nar a génn sa morom lay xëcc ñu nungu mais ab baxal bi wax la après lañ koy leeral lundi lundi la leer waaw Rapa nuyu naa la. Ousseyn fay naa la. laa lay wax. waaw merci beaucoup. dara ñu gis sa combat bari woon coow. nga ñëw c'est la première fois ñu gis mbër taxaw ci digg géew laaj micro di wax ak amateurs di wax ak supporters lan la waaw loolu xam nga dañ ciy sant suñu staff rek loolu suñu waa Igiré ndax tey ñun ñëpp ay mbër lañ mbër en même temps ay porteurs de voix lañ suñu image dañ ko war a jaay. comprendre waruñoo ñëw ci làmb ji di wane ay n'importe quoi di wane affaire de xam nga esprit mala quoi ñun ay nit njaay lañ léegi suñu waay ñoom inspiré lool loolu moo waraloon juróom mu andi loolu quoi pour sensibiliser mbëri te na làmb ji dañuy dafa bëri violence xam nga kon ñun ndaw ñi ñun ñun ndaw ñoo xam ñu ñoo des si làmb pourquoi pas ñuy jéem a sensibiliser suñu waxtaan ak ñoom ndax ñoom dañuy xër rek moom moo tax ñuy def naka su dul noonu waaye combat bi dafa am lu ci lu ci duggoon bëggoon koo yàq wala dañ cey dégg coow loo xamante ne moo taxoon nga doon waxee noonu non du loolu wa dëgg fa yàlla waxuma dara lu ma naxari man tam aussi yaakaar naa waxuma lu ko naxari ndax avant làmb jooju jamono jooju nawetaan yi gis nañ nawetaan yi comprendre nga gis nañu esaar yi duñ doon def ñu ñëw li yàq séeréer ak yeneen ak yu gën a xamul. pourquoi pas ñun ñun ndaw ñi ñun ñuy bëre ñun ñu tax ñu defal ñu biis biisu biir pourquoi pas waruñu mën a sensibiliser loolu. comprendre nga tey combat bu mag am na fii lu ci mel ni bombardier euh, Balla Gaye gisoo séeréer bu damm. gis yaa ngi may dégg gisoo séeréer bu dem gisoo dara dara pourquoi pas ñun combat yu ndaw ñuy def naka sul noonu dañoo war a mën a sensibiliser loolu loolu loolu rek ah du du question la waane du question la dara xam ne ñun ay xamal ay porte de voix lañ war nañoo wax ñu déglu ñu loolu loolu la woon quoi. bi nga jógee ci ndam li ñan ñoo ci des. ñi ci des Bébé Bismi na ñëw moom may ko sens. yow yaay may sens Bébé Bismi day ñëw moom may ko sens. Euh, comment dire Liss Ndiago Tapha Mbeur ki ci daan nag laa ko waxuma ki daanu de ki ci daan na ñëw ñu bëre. ki si daan waxuma ko. mais fi mu toll nii laal mayatoo sens te da ngay préciser ki daan. ki si daan laa waxuma ki daanu de ki si daan laa soxla Bébé Bismi dama koy may sens waaw le reste moom su dul loolu ma toog xaar waaw. waaw baax na kon ba. waaw waaw atiwaat di sant waa Guèye waaye yëpp ah waaw noonu la demee ok. préparé na ñëw ñu bëre. wóolu waxal. da nga koo ñëw préparé na ñëw ñu bëre. préparé na ñëw ñu bëre. daanul mbër. nga ne daanul. daanul mbër albarka rek la daan. albarka ah? rek la daan daanul mbër. dégguma li muy wax barke Rasulullaay billaahi ak feeg bu ma jublu albarka tànk laa koy may billaahi. ba ma ko daanee mbapat. kan lay waxal ni. yow préparé yow laa waxal kaa ñu bëri lu ma ci xam. damaa xam man lay waxal xaw ma si dara di. réparé agogo nañ ñëw ñu bëre. alliance Balde. caatu Fora. wul nee na yow la kan booyam nañ ñëw ñu bëre. nee na yow la kan. Guinée Bissau Thiatou Kairé Xarkandoum Kairé nga daan Thiatou Kairé ngi nii jël ko man musuma bëri moom rek laa soxla. yaa bëgg bëre Thiatou Babacar moo ngi ne yaa ma dégg sa waay ngi nii na leen jël man xaw ma ko wax dëgg fa lu ma ko dama ko toj xaw ma ko. ñu bëre man moom laa soxla su ma la. albarka dama koy may tànka wala déggoo ma daanu mbër. bu aar bi soufflé nga génn làmb ji man ak yow. billaay wallaay taalaay bu aar bi soufflé ma génnee la làmb ji. bu aar bi ma génnee la làmb ji tapet nga. <laughs> yow kenn xamula jël sama was. xam nañ ma xamuñu ma jël sama was. jël ko. tapet nga bàyyi leen seen teggente bi. làmb ji lii moo ko yàq. réparé la solo. làmb ji lii moo ko yàq teggante bi. réparé moo ñi barki Seydina Mohamed bu may nelaw mënu maa yee kii bu bi soufflé laa la ma duma ko daan ko. bu arbitre soufflé duma ko sax laal dama koy dóor ba mu toog. kii kenn xamu ko. man fils de Thiatou Kairé laa. man kii xaw ma ko. Eh. doo doomu Kairé. ñun xam nañ Kairé jullit la njaago nga. Kairé jullit la yow njaago nga. waaw sa moromu ñoom kii du mag moom sa moromu ñi voilà Serigne Bamba kii du mag moom ñaar la moom ngi nii barke alxuraan kii ki muy tëkk du moromam booy de wane déggoo li ma la wax amul doomu mbër de amul amul doomu mbër booy bëre safa dem xooli ci kanam Alboury kaay baax ak Brise Mer ñoo ngi noonu ci digg géew bi arbitre ba sifflé na Il est 19h35. Journée Habib Lekran. Xale yaa ngi noonu ci digg géew bi grand combat baa ngi noonu. Albourikaay baax. ak Brise Mer. Brise Mer moo ngi moo ngi amal vax bi tent bopp bi. takk ci Brise Mer a ngi demee wet wala boog. Alboury Brise de Mer Alboury Brise de Mer ñoo ngi lewaatoo Brise de Mer taxawul Brise de Mer Alboury Brise de Mer Albouri Brise de Mer Albouri Brise de Mer Albouri eh Albouri Brise de Mer Albouri añ na ko Albouri añ na ko Alboury añ na ko Brise de Mer na dooraat Brise de Mer Brise de Mer Alboury ngay dóor Alboury kaay baax ak Brise am na ñaari loxo ci ngemb wala boog bàyyi na benn ba Brise de Mer Alboury ko bëgg a fàq léegi waaye Brise dafa bañ Brise de Mer Alboury Alboury ngay dóor waaye Brise nga jàpp fa mu jàpp Ousseyn Brise bi daa mel ne jeexal a guddee Ousseyn moo nga jàpp fa mu jàpp rek Alboury fàq na Alboury dafa bëgg a fàq Gargui moom mu daal di bañ mu daal di roof naax ba ci kaw. Brise mais boo xoolee dafa mel ni dafa bàyyi ak làmb ji Alboury tey. dëgg la parce que làmb xale yu mag la xam nga làmb xale yu mag ñoo la demee saa su ne Ousseyn boo xoolee boo waa ndeysaan Makan xaama ñëw Ousseyn xaama wuy Makan. Eh, Brise mais fàq na ko takk na ko da koy tegal 16 Alboury rëcc na Brise mais fàq na ko Alboury rëcc. Brise de Mer Albouri eh Brise de Mer fàq na ko Brise de Mer koy fàq Albouri koy fàq Albouri yaa ngi bëre ñoom ñaar eh Brise de Mer Albouri Brise de may na ko may dafa bari

Rosemer ñoom ñaar seen combat metti na Ousseyn kii dafa mel dafa na ba de Ousseyn. parce que boo xoolee. li parce que bokk génération ci lamb. benn génération la. benn mais seen édition bi mu jël ci lamb tamit commencé naa trois bu jël ci mais dégg naa ñu ne yokkaan nañ dafa ñu ko dix butéel parce que am ay journée am solo ku ci ne guy gi rëg rëg Ama Baldé Modou Lô ngi war a ñëw ki nga xamante ne mooy Jokkel ak ki nga xamante ne mooy Ada Fass journée yooyu yëpp buñ ci dañuy gis ci lamb ak culture buñ ko demee gis ngeen aboo ngi noonu. waaye mbokk yi loo gis lu ne waxtaan la. ndax boo xoolee mbër ñëw ci digg géew andi ñetti butéel. nekkul loo xamante day taaral bés. nekkul loo xamante ne day taaral digg géew. waaye Brise Mer ngi noonu. Alboury Ngok. bu yàggee tuuti léegi coono commencé feeñ. fatiguement feeñ. abit ba àtte neen leen ñëwaat leen ci digg géew bi. ndeysaan ñu ne jox ma sa morom téeréem arbitre sifflé waat na combat bi dox ci diggante Brise de Mer ak ki nga xamante ni ni mooy Alboury Alboury Brise de dafa mel ni fatiguement daa commencé dugg coono dafa commencé feeñ Alboury Brise de Mer daa mel ni coono dafa commencé feeñ. waa coono day feeñ parce que ay ponkalu góor yi dóorante suba ba léegi contact bu ñu dalantee léegi léegi coono day génn. albu ngeen koy faax albu prise bi muy def nii albu yi faax na ko. waaw mu ngi albu yi prise lay def. albu prise lay def. Eh, jàpp na cànk ba da koy daan daan na ko toog na. doole alburu daan na doole Ousseyn. alburu daan na ko. alburu daan ko. dox nga arbitre bi gis ko maa ngi koy wax. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. gën a jëlee xale. ndeysaan. bilaay moom ma bëri waale ma bëri waale dafa yàgg. ndax ne woon naa leen bëri ma ak yow. yàlla xam na combat bi du yàgg incha allah